café Bourg yu ànd ak 4 yi moo leen may seen émission Teuss Teuss Teuss ci Zik FM di journalu faits divers yi suba su ne suñu altine ba àjjuma Teuss di xew-xewu jamono ci biir quartier yi ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeur Teuss ak Ahmed Aidara asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alaay. ah. Alaay ci loo ne. sant yàlla bu baax a baax. Hmm. walaay walaay walaay walaay. daa mel ni da ngaa. walaay walaay yëkkati drapeau bu weex bi. waaw tey moom damaa weex taal. waaw tey day da ko tey moom jàmm laa pee daal ngay indi. Ah, ah waaw waaw. waaw adduna day. Ah, tey sa kudu jàmm laa ràcc. ah doom day. day wute nga ak sànjiri. sa Sanjil Sanjil kër xuppe rek xuppe rek. Ah. boo jugee ci biir dal ca ba ca des. Ah. Ah. doom maa comment vas-tu. maa ngi sant yàlla bu baax waay. ana Absa. Absa Baawo Ndom. Absa Baawo Ndom la wala. pharmacienne ji Baawo. waaw waaw Baawo la sant jël am naa benn xarit bu nekk ci fas yi Baawo sant de. Hmm. waaw kii Baawo. copain wu Baawo la sant madame Ndom. Baawo la Baawo la sant. Absa ah Ndom gi la indi. ndam ji la jël. demoon fii na sëy ba dee. waaw waaw sëy de sëy def na de teg ko fële. c'est que li mu métti ci moom mooy. doomu ndeyu mami Babacar mu baax mi borom ah. bio product. bàyyil publicité bi. loolu publicité la. mu ni mu ni loo wax ba ne Prodac. bio Prodac mami Babacar. non non. bàyyi yooyu boobu ma xarit la. bu ko fi tuddati. produit bi laay bañ ci rajo. yow kooku di sa di sa kii. dara ma ma ne ah Inteca fan la géej waay. Inteca la kon tuddal tuddal tuddal tuddal tuddal. kooku di femme d'affaires bu mag. tuddal càkka nu mu tudd. déedéet duñ ko tuddal mami Babacar ko répété. alaaji ah, ma ni ma tee. non non non ma wàññil wàññil dara de eh, mami xoolal wàññil kon mami sama papa nee na nga wàññi. dégg waaye man sax xaw ma alaaj lu sama yoon ci wàññil ak yokkal. Ah. Ah. waaw yow kay bu neexee papa Ndoye. papa Ndoye neex na ko nag de. ah mu ci jaaxal neex na ko. neex na ko de kon ne nekk na. kon yokkal nekk ci. kon nag taj temps. <laughs> mami taj temps ana Omar Sidibé. <laughs> kooku ëpp fit ñëpp. moo ko ba ci Kaaba ga dem ba Màkka naan ay taj temps. kooku kenn du moom ay photo dama tiit ma naan ah xam naa Omar Sidibé boo demoon daa demoon Asie ay prestation ay ay ay ay ay Japon ak alaaji. waaw est-ce que demul woon Chine comme que ñoom dañuy tourner ak seen groupe bale. waaw jaare fa. après escale. waa ci Jidda. dem Kaaba ga tawaaf. Mexique la demoon tourner. siyaar ñëw ma ne ko Omar foo demoon. mu ne ma Makka xawma ma ban région ma ne ko baax na merci. merci beaucoup. waaw ma ne xanaa affaire kon du jëm kaw foofu wala. non non ah yow. mais man. ah yow. non ça dépend ci ni nga koy defee. taalal taalal batterie ji. ah dañ ko def genre dëgg diggante Medina eh, eh, Kaaba geeg gàttandu ba. Ah, waaw loolu kenn du ko fàtte. gars yi dañoo reconduit ji. amoon na ay ndënd. ah ay tabala Alla Diop barki démb marché central poisson bi alaaj ah Alla Diop nag. Ah, ah ah tabala Alla Diop nag. ah ah tabala Alla Diop bi de. fa nga dugg foo nooy. yaay lay la ba mujj doole ko yaayam ne woon Karara. waaw Alla Diop barki démb maa ne woon marché central poisson. Ah, Alioune Abatalib Aydara Karara. damaa bokkoon ci damaa bokkoon ci damaa bokkoon ci pare yi. mais àll ñëwagul grand plateau. ñëwagul mais man loolu ah, jaaxal na ma de. nag de on a gaaw ñëw de. ah àll waaw nee naa yaa ngi déglu. àll Diop daal xam naa ne ak Cheikh Mbaye ñoom xale bu dëkk Thiès Alaaji Cheikh Mbaye. waaw. ah Assane Fall sa koñ la yuntekat waaw waaw ak ak ak Kële ak ak àll Diop. waaw ah war na ñoo ñëw. marché central poisson daal Alaaji. waaw ah maa ngi nuyu grand Ousmane Sow ak ñoom Assoudia ak madame Aydara Karara dem nañ de. waaw ah, waaw dem nañ de. Ah, dem nañ de man de man bu wooyee ba ne Alioune Abou Talib Aïdara Karara. Ah. xol bi sedd guy. ba xale la ko bàyyam ne woon Karara. <laughs> rek jaar ca diggante mag jaanu ñàngoor ba. Ah, surtout yonent bi ah, di ko tagg. ah du caaxaan de ndeysaan yaay ja xool ko ak jaan ba yàgg tagg ko. déggal lii Mara Ndiaye. Chérif du caaxaan. maa ngi lay siyaar yàgg du juuf. ndogoy neex na. wax naa Nimzaat noonu la. marché central poisson. mun naa laaj leen. ba koor gi commencé ba tey ban jour nga ndogoo sa kër. <laughs> ma bett ci mbedd ma jaal li ma jaal mooy. même question la posé démb. bi ma toogee sama kër moom di ndog de. en tout cas démb dem nañ fii nii. mooy mooy moo ko doon conférence. ndeysaan macha allah sama kër. waaw waaw waaw waaw demoon nañ tamit unité 5. waaw loolu keroog bu mu jugee marché central fa laa jubali. Uh-huh. te ñoom Farsar ak ñoom Anta. voilà ñu waaw dañuy ànd ak sama benn frère doomu Alpha Daat Hamidou Daat. Ah, waaw waaw waaw professeur bu mag la sax ni bàyyeem fii ci université. macha allah ah, Hamidou ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan ak Chérif Aydara. waaw kay ak Oustaz Ndaw ak euh, Mbacke Balaye sa Hamidou Daat. ak ba nga xam-xam bàyyi. waaw waaw mani fii daal laa wër keroog samedi alaaji marché central. unité 5 ci ñoom madame Fat Sarr madame Seck. Mhm. jóge fa dem ci Papa Thion Jong croisement Sam. Mhm. <laughs> jóge croisement Sam séddale sama koñ la. Xaadim Sall borom moto bee bu bee ba léegi. clim balaa maa dee. Alaaji jóge fa déglu faree góor yi le même dem li maamu waa waa waa foire dem nga ma jaar fa. door fa benn place. ba dugg toog sama jabaatu moo ko organisé. alaaji ma jóge fa. ñoom waaw. ma jóge wax xanaa <laughs> <laughs> benn commune laa defal samedi mooy Gunaas te nii laa ko rombé nii laa rombé buntu bi. <laughs> juróomi commune ñooy après nga dem ci doomu imam bi. waaw non non bi nga boobu une heure du jot doomu imam bi ñëw te maa waroon dem kat mu yërëm ma. dama woo. wuy ma. ku <coughs> dem fan. ah woo woo na ma téléphone de ma ne ko man <coughs> man heure bii moom wóor na ma daana fekk ngay nelaw xaw ma tey lu xew. <coughs> ma ne ko tey la samedi. suñu imaam bi. li ma bëgg a xam yow ci koor gi compter sa xel rek nga compter sa xel. ñaata jours nga ñëpp xam nañu ne man guddi. dimanche dimanche ma xëy. waaye dimanche alaaji ma xëy. vingt heures lay tëdd. dem ci conférence waa fii mi sopp na bi foofu la Mouhamed Mbaye nekkoon. voilà ma jóge fa. dem suñu koñ suñu koñ yaay. mboolu trois ñoom maxu ak ñoom grand Badou Niass ak sëñ Omar Mbacke maa ngi lay siyaare di leen euh, waaw ak ñoom Ousseynou Fall. waaw sama mbokk yi ci initiative bu ñoom maxu hmm. maxu Colobane ay jeunes yoo xam ne ak lu ne hmm. alaa ci koor gi waaw dañoo ñaanal suñu woy dawla yu gaañu suñu koñ yëpp macha allah ah loolu initiative bu baax billaahi wàccee kaamil togg ay ndog yàlla ñu jot ci def ay café amin te bii mooy troisième édition hmm. billaahi waaw maa ngi koy nuyu maxu merci beaucoup su Serigne Ndeye Fatou jërëjëf Pël Sidibé jërëjëf yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay kon ñu ñëpp kontaan nañ ci yéen waaw Amadou. nga jógee fa. jërëjëf kontaan naa. dafay taxaw lu yàgg pour bañ lim gi sore. di nga ma di nga ma bade. suñu waa koñ la. waaw grand code maa ngi lay siyaar. gis nañ sa dugg si bi ak El Hadj Malick ko ak Papa John Jong ak ñoom Khadim Sarr. jërëjëf code. merci beaucoup Papa jërëjëf jéy. jërëjëf sëñ Omar Mbacke Mbacke Balaye si jërëjëf Ousseynou Fall wax ji rafet na. <laughs> du ñas mbir mi ànd naa xam-xam. taalibe seex yooyu jërëjëf. bu noppee di ma abal man tamit de. jërëjëf non non doo leen fi wax tey. ah duñ ko nangu de. jërëjëf jërëjëf. wax waa Géejawaay te waa campement am. lii waaw jërëjëf jërëjëf. Euh, ak waa am na boo xam ne nag am na boo xam ne dafa rafet dañu koy saluer mi te dama bëgg yéen ñaar ngeen teew ci muy benn ndogu boo xam ne benn groupe moo koy organiser non non ma ñëw de ah du sa koñ de ah déedéet groupe bi let's go sortir les tout let's go sortir du Sénégal fàttali nga yi euh, euh, chrétiens yi organiser woon ndogu côté liberté si waaw waaw chrétien dañu organiser ndogu di ko defal jullit yi. nag. ngir ngir fay. bor boobu entre guillemets njukkal leen. dañuy amaat ñoom it boo xam ne ndogu national lañ ko tuddee. diggante jullit yi. ak chrétien yi réewum Sénégal place de la nation. Oh. le 7 ak le 8 mai bi. Oh. Oh, incha allah oh. loolu dafa rafet oh, tellement dañ ko def ay télévision ay télévision yoo xam ne ay nasaraan la ñoo ñëw euh, loolu noonu kon bii nag dañ koy rafet la ah, waaye Sénégal exemple la de ci àdduna waaw wallahi ci cohésion bi fi am macha allah macha allah nag am naa sax conférence waaye comme bi matin la ndogo bi ngoon dinaa ndogo bi ngoon le huit fan la le huit fan la ñun daal ñu jàpp benn daal diggante le sept ak le huit daal ñu dem ci conférence faamu Pastef yi faamu Pastef yi Linguère yi. waaw ñoo damaa bokk ca pare ya. moo duggee Seck maa ngi lay hmm. waaw dama dama caa bokk. ak ñoom Koli Koli bu Pastef. loolu dinaa ñëw waaw ah da ngaa war a ñëw. waaw eh, eh, waaw eh boobu mooy suñu tafsir bi de. bu imam. waaw waaw. mais mais bu imam bi quinze heures seize heures la. waaw man bu imam boobu. bis boobu daal. waaw ma. alaaji il boobu daal. bis boobu daal mooy bisu léegi man maa la bisu li wolof di wax ni. maa lay ko waaw sa ngemb du tàkk. waaw kay. koor gi xam ne. fii booba xew-xew bu ñu fi annoncé. Ah. bu dul xew-xew imaam safewu. waaw waaw. <laughs> Ablaye si. waaw suñu imaam boobu. waaw. rakku Thierno Ahmed. waaw waaw. bu ñu fi annoncé safewul. imaam si jërëjëf. rakku Bokar. Alaaji. Hmm? na nga ñëw nag. bañ a dégg nga ah? lan na wax. na ñëw. loolu. non na nga ñëw alaaji. loolu. maam làmp yi tey la ñaar fukki fanam yi na nga ñëw laa wax alaaji Géejawaay. Mm. na nga ñëw. alaaji léegi samedi man maa la invité ndogu. fan sa kër sama kër. yow da nga fay ndogoo ba invité waat. Mm. <laughs> lii kii ah, alaaji seytaan lii tamit problème la. <laughs> nañu waxante dëgg. maa lay invité. question la ndogu samedi. man tu wax ni question mais yow doo ndogoo sa kër. suñu tafsir bi déglu ma rek. ay doom déglu ma dëgg dëgg fa yàlla. foofa nag hmm. diggante bàyyi doom xajoo ci. Hmm. yow xaalis wax lañ la ngéntee ñu nii. boo melee nii duma ma bett ma yeggale alaaj hmm. <laughs> dégg samedi alaaj man maa lay invité ndogu yow. waaw boo ñëwee daal heure boo dugusee. waaw géejawaay. waaw baax na. waaw 15 heures 16 heures. waaw mooy tëjtee tafsiru. suñu imaam bi. waaw waaw kon nag yéen démbooy. waaw. ak ñoom xawaa ba yéen ñëpp da ngeen préparé. waaw Mansour Diop dina dikk buñ fa jugee. alaaj mm-hmm. mm-hmm. euh, bu ko defee. Mm-hmm. ñu dem sama kër ndogu. waaw waaw léegi wax ma leen. alaaj naa la fekk de. prenez note. na ko fekk fan. naa la fekk sa kër de. wax ma leen nga bëgg alaaji. ban ban heure la tafsir bi jeex. tafsir bi 15 heures 16 heures. waaw ban heure lay jeex. 16 heures 16 heures fa la ñuy jullee tàkkusaan après ñibbi. 16 heures. wax ma li nga bëgg. non ci ndugg laa wax ak lekk. alaaji samedi est-ce que est-ce que samedi bu ma bu ma bu fi jeexee seize heures est-ce que du ma ñibbiwaat kër Sonko. <laughs> beneen problème. parce que ça parce que ça. <laughs> ah de ah mu dëkk kër Sonko. ma di. Ah, kër Sonko laa ndogoo samedi bii passé. alaaj dëgg ma expliqué la. waaw léegi wax ma li nga. alaaj ma paqueteel la ndogu yi nga dugal ko sa oto yóbbu. alaaj li may ndogoo. waaw waxal ma xanaa nga commandé ko. man sama ndogu. waaw yomb na. waaw aubergine bii ngay jël. waaw. Euh, saucisson. yu yooyu mel ni nen. waaw waaw teg ko ci pool bi. def diw tuuti ci pool bi noonu rek. saucisson teg saucisson bi. diw jël aubergine boron bi teg ko ci kaw. aubergine. jël jël fromage gruyère bi teg ci kaw. fromage bàyyi ko tuuti mu daal di suuf xaw a taal noonu nga teg teg. yooyu xeetu bul yooyu daal bu ma ci amalee cinq ba dix. poulet poulet pané yeeg yooyu nag. yooyu yooyu yooyu guddi xaaju guddi la la. waaw mais nga yóbbaale ko. mais bu ma soog a dog moom. Ah. nga xam ne amul benn. alaaji man lii man lii moom du ma tax a dem marché li nga fi wax nii. dama koo xem lu toll ni man Sor Diop di ndogoo sama kër. Ah, artillerie lourde bi laa ma. jëpp Fall Boys yooyu yooyu alaaji alaaji. <laughs> <laughs> Eh, kon ndaw riir bu bëri. alaaji li nga wax nii daf mel ni daf mel dafa ne kon il faut ma. waaw ma ànd eh, sama état major campagne. déedéet ni nga ko ma waaw léegi kon. waaw loolu naa ko jàppee comme entrée. waaw. dégg loolu. waaw waaye waaye El euh, Hadj Mansour Diop. muy ñëw sama kër. barki yonent di ndogu kooku altiri loolu laa dama leen bëgg yéen ñaar. alaaj alaaj léegi wax ma a ci suuf est-ce que sax est-ce que sax sama. wax ci dafa ànd ak loxo ya ca kaw est-ce que sama léegi déglu ma sama stof du yegg ci euh, ba. waaw léegi déglu ma ci euh, euh, alaaj léegi ñetti bakkan yi ñoo taxaw. boo bëggee ma rayal la ay ganaar. Mm. boo bëggee ma rayal la xar wala béy. wax ci moom eh. non non moom mooy tànn. xam nga nag moom c'est trop exagéré ak ay gileem. xam nga coow bi yëpp. Eh. mën ko alaaji laay dogoo sax waaye coow bi yëpp alaaji man mën naa tim ak jun atum lëmm du ma ci xëy benn te bu ma doggoo ko alaaji alaaji day xëy benn samedi ni juux yendu sama kër. te bu bor bi sama xaw yooyu lay xool moo tax <laughs> alaaji bëgguma nga xayal. alaaji du ma la sant barki yonent bi <laughs> foo man xam naa li may def de. non alaaji déglu ma ñu waaw déglu lañ def bu ñuy dem nii dañuy yóbbaale gàtt teg ko ci kaw ka sambaar yow yóbbaale fan waa ma lé non bàyyi noonu ba yàlla di dikk dama ne léegi nañu wax li jàmp nii nii nii nii. jàmp alaaji ndax yow sa ndogu waajtaay la laaj. saucisson aubergine ak gruyère alaaji baax. loolu entrée bi la. Euh, alaaji xanaa ni nga fa reere. dinaa fa waaw léegi wax ma li. damay xalaat kii rek bu neex alaaji ba mujj ba ñu ñu ko sa kër def ko conférence benn yoon. ba tey. ma gàddu mbooloo ma ca kër imaam euh, euh, si yóbbulee mën naa nekk de waaw wax ma li nga bëgg léegi da nga bëgg ay jën yu mag yu am ay nen wala ganaar wala bëy wala yàpp xar du ma participer ci pillage suñu géej gi alaaji alaaji li wala nar a teraangal yi bugaan sax bu ñëwoon sama kër loolu du ko am <laughs> ndax kii bi lay bu yeboo bugaan ndax kii borom saat maître Baba oh wërëm gii mu nekk amul sama jot Mansour alaaji et eh, Omar invité naa la Omar Ponou alaaji wax ma lan nga bëgg a ndogoo Euh, moo géejewaay laa bokk yëpp bu ma ko matalewul sax ñu cotiser ma ne leen mën suur fii lay ndogo te man sax koy matale. li ma la laaj ma ne Khalifa Dieye invité naa la. saa doo wax ma dëgg te njëkk bi ngir yàlla. alaaj ba damay commencé bàyyi ma invité samay nit ki en attendant. waaw non danga may wax li nga bëgg euh, ma la wax wax ma ci benn. maanaam xar. loo bëgg. bëy. waaw ganaar wala jën yu mag. non defal ganaar ak pitax. ganaar ak pitax. ak lakk sa picc xew. ak pitax pitax nii lañ koy bindi alaaj. waaw ma def ko x bi. defal x bi moo moo sénégalais. waaw pitax ak ñaari ala wala x rek doy na. ginaar nag. pitax ginaar yi daa am ñu koy toppee. déedéet yooyu moom si suuf la après alaaji garaaw yow daal nee nga ma ganaar nga bëgg ak pitax. madame si Faba Ndiaye invité naa la. léegi lu koy accompagne ay firit la wala ceeb. non non. noonu ñun mu ah ceeb la. Ah. ah nii nii rek. ginnaaw ñu munoon ak ak ay tuuti yo ñoom tomate ak. crudité daal waaw crudité. yooyu noonu euh, lu weex li li ñuy defaree nen. crudité lu weex li ñuy defaree defaree nen te ne ci pot la mayonnaise. ah mayonnaise. mayonnaise gi kay mën na ah. lu xonq li mel ni tomate. ketchup ketchup. ketchup euh, ak laa nekk bi na am persil de. roofu ganaar. waaw ak tuuti jinjeer am persil ak jinjeer de. ah waaw waaw laal ci benn borom polle bu tuut rek. roof. relevé goût bi. waaw roof relevé goût bi persil waaw. roof persil. Ah, jus bi ak ak jinjeer nga ni. jinjeer ak tuuti jus bi ñuy naan nag na doon jus na doon jus wu Sénégal. jinjeer. man mën naa nekk. roof persil yow toq xorom polle. jinjeer yow ak toq. xorom polle bu yóbboo mu nekk xobu. xobu kii. toq xorom. polle xorom. Polle. waaw kon da nga defal liste bi nii koo ko joxe. Polle léegi yëgalil alaaji ak. bu man euh, kii bi waaw waaw la de. waaw na ko defar ay jus locaux yu baax. bisaab. mélangé ko nag waa ñoom bisaab. bisaab bu weex ak bu xonq ak feuille de moringa. feuille. moringa. feuille moringa de xaw ma xanaa bu. xaw ma laajte ko xaw ma xaw ma saab saab. ah xobu saab saab. xobu saab saab. mosoo ko ñam. saab. waaw damay jënd tee bi de moom tee xam naa ko. léegi. lii rek laa bëggoon a xam alaaji léegi boo ñibbi nag à peu près paas bi ma jox la ñaata essence. ngam <laughs> eh. ngaa ngay bëgg a neex. sama a ndogoo sama kër. a ndogoo sama kër. moo tax it naa la ko. alaaj <laughs> bal naa la paas boobu. deux cent cinquante mille essence. alaaji alaaji bal naa la ko. wax wax yow tey ngaa wax rek. alaaj damay coûté. retour bi man man yow. man sa retour ba ay métti. barki kii mi ngi mel ni du Barcelone. waxal rek man sa retour ba. barki Rasulaay remontada ba du miti. remontada ba miti remontada mooy am. alaaj alaaj pass laal ko 500 rek. billahi ba laal ko 500 boo ma ko boo ma ko laaj. alaaj wooyee faral ko ko laal ko 500. man lijjanti ko ci biir dëkk bi. téeméeri junni rek. alaaj yombalal ko ko laal ko 500. alaaj jox ma 500. waa kay 500 500 mille. jël cinq cent mille waaw essence eh, jël <laughs> eh. nag madame Diop yaay Mohamed saa ñeenteelu léegi nag léegi nag euh, léegi alaaji ndogu bugaan des abi Thiaw invité naa la bugaan man invité wu ma ko léegi Mansour Gueye invité naa la euh, waaye wu jëgi ci alaaji ma ngay invité di alaaji ah? alaaji waaw karootu France gi ak karootu Maroc gii ma doon revue de presse léegi nii. waaw billahi. Ah! lii de tax bàyyi hectare hectare di fi yàqu. bëgg concurrence suñu carotte de. zone Mboro beeg Lompul. xonq yooyu. Jogo. Ah. wallaay seen yëpp. Touba Ndiaye. Daaru Ndooy. Taïba Ndiaye. Nooto ak Daaru alfa Bougane Gueye Dany tamit wër na de. moom kay moom kay moom kay. Oustaz maître Babacar Seye. Mhm, boobu moom gis naa ko exactement maître Babacar Seye bi nag man gëw ma ne gëw ma ne gëw ma ne dinañu ko laal de xanaa laa yaakaar. Ah, xanaa sañ sañ sañ yeggu fa laa yaakaar. Ah. Mhm. dañu daaneel stade Assane Diouf. waaw. du mujjul fenn ba tey. Mhm. Ah. téléphone fu tous ba tey. <laughs> da laaj. <laughs> <laughs> Abdourahmane Diallo nee na ñu ngi bëgg a yàq seen koor gi. bëgg a yàq seen koor gi. voilà léegi. lii moom il faut que ma dellu soit ci après. Assou Dabo de Sacré Cœur 3. maa ngi koy nuyu. sëru madame Dramé. voilà mm. léegi. Mm-hmm. Alaaji. waaw. te su tey bi. Mm-hmm. kii de nee na mbaa du mujj fanaan. <laughs> loolu lay xalaat. ngan ngay may tey. am naa sponsor. Ah. merci waay. Pako merci merci waay Pako merci. mais Malick Wade invité naa la yow yow xam nga ni yow fu ma dem yaa nga fa. ma ni euh, reer bi kañ la. Euh, samedi. alaaji da ngaa war wut wutaale sax nag. alaaji samedi lay ñëw. xalaat naa xalaat naa di nga ut di nga ut di ut di ut haut-parleur yu yu bultuf yooyu de. non non jaru ko alaaji. mbaa da nga fay gàmm. non non xalaat naa mu soppaliku gàmm de. non non non alaaji ñu rek. xalaat naa mu soppaliku gàmm de alaaji. léegi alaaji alaaji ah. nañ dem tës bi te dellu soit ci ndogali Mansour Diop war a ndogoo sama kër samedi prochain. balaa ngay dem ci ci ci ci ci tës bi. oui tësu keroog bi ñu fi defoon yaa ngi fàttali ko femme boobu nga xam ne euh, jëkkër ji dafa ne woon jurul doom ji. waaw te mu doon euh, bëgg ñu defal ko test ADN rek ngir yàlla. waaw waaw waaw waaw. femme boobu nag euh, alhamdulilah Bougane gi Dany jël na ko en charge pour ñu def test ADN bi dañ def kéemtalaay kàttan pour laajte ay renseignement fan la ñuy defee test bu soobee suñu borom ñu jublu ci. mu jox ñu ñu dem defal ko test ADN bi. Ah. lépp lu war ci wàllu procédure mm-hmm. judiciaire it waa AGIS jàpp ci ngir incha allah euh, euh, waa ji nag mën a euh, nangu paternité xale boobu. Mm-hmm. kon di ko jaajëfal bu baax a baax rek président njiital mouvement gëm sa bopp waaye tam di PDG kër gi. ndax saa bu nu jaaxlee ba ma sollicité ko ci sonn ci lool. nga gis nag wax dëgg yàlla mu ne mantu defal. defal te yàlla rek tax. donc ma ko ciy jaajëfal bu baax a baax a baax. ana ndaw si moom après nañ ko woo. waaw incha allah ñu ngi ci ak moom. Ah. suñu borom ak madame Dramé. alhamdulilah non Pape Amadou Gueye alaaji nee na nga délocaliser gars sa gétt ga balaa remontada di am. non remontada boobu dina métti lool muy utiliser yëpp loolu la. ma ne ma xaar remontada bi loolu la kii nee na kii nee na <laughs> cinq cent mille carburant xalaa alaaji dootul jënd essence ki li des ci at mi <laughs> man non man essence bi sax garaawul. non non alaay fi mu toll nii dina def tout ba 500000 du ko laal. non non 500 naa jël. mën naa jël bi. alaay 500 ndawtal la la a fay. non non non alaay ko dara. ah nee sasula dara déglu déglu ndawal gi laay mi ngi fu neex. non non sasuma la sasula dara. alaaji Mercedes bii nag 250 dañu koo sàcc. encore. ñaari boulangerie géejawaay te yàlla suñu borom. ay ñun ñuy waaj suñu ngan gi ngeen nekk fi di sàcc. ah. ah. si kii naan ma ma ñëw kan la. bul ñëw de. Euh, alaay waaw. léegi tës bi tey. Mm-hmm. bi nag alaaji nag laaj na xalaat waaye itam doy na waar. tudd nañ ca waa palais de. Mm-hmm. palais de la république tudd nañ leen ca. ah oui boobu nag ngeen déglu. kon day naa ah waaw. Ah waaw kay. Sanjiri yow laay waxal. dégg nga loolu yow alaaj Sanjiri laay waxal. kii naan am ndax Amir fay na la sa vingt cinq mille ko fay na ma yàgg. non non non seytaane la. Euh, topp kaa mani topp kaa man de kenn du ma topp kaa. yow fay na la vingt cinq mili kaa vingt cinq mille boobu la ñu ma laaj. ñii ay ouvrier lañ nekkoon seen chantier alaaj lan la. <laughs> yaa ngi yëkkati loxo de. El Hadj Malick waaw Proba sama xarit bi nee na ma remontada bi maa bu ñu koy yeggee. non non balaa na seere ma sa ale ba pare. waaw waaw waaw waaw. non fa ale amul retour du fa am. déedéet remontada bi lay. ah déedéet ne ku ne gérer ses ah, ni ma sonjaafu nii. daa am ñu ne ci ginnaawam. ah waaw. <laughs> kon na bàyyi ma taw sama sama sponsor. père ku ne sa ginnaaw yow. <laughs> ah leen Sénégal bu ñu ne di dem kan moo ci ginnaawam. waaw. li Bougane Gueye Dany di kaas. waaw waaw waaw. waa am na ku ne ci ginnaaw. <laughs> Sénégal ak ñu cee gaaw. Hmm. non Ameth mi sa waay. Ah. am na ku ne nit ñi dëgg de. matin. Ah, di ko daal li Aliou nelaw deux alaaj uh-huh. ñii daal ay ouvrier lañ maçon. waaw alaaj déglu de. nekk seen chantier ba ci yàgg polis ne déréreet ñu mm-hmm. fekk leen mm-hmm. alaaji waaw nee nañ fekk fa ceeb mm-hmm. déglul de waaw te sax benn ceeb bi sax gardien bi ci boppam ñuy fanaan foofu moo koy jëfandikoo ak waa këram ñu fekk fa ceeb ak nee nañ ay bagaasu Auchan nee nañ ay bagaasu Auchan ramas leen hmm. police de ah. déglul de bañ leen ramasser. Mhm. présenter leen tribunal. ñu jàll leen Cap Manuel def fa ñetti semaine mhm. gannaaw ga la àttekat bi ne relax bàyyi leen ñu ñibbi. Mhm. toppee ñu leen si dara. commissariat ba nag commissariat wu Tëngéej la Rufisque. waaw loolu tës bi ñëwagul ba léegi di. ah bon waaw mais la ca doy mooy ñoom dañoo yoroon ay xam nga bu la jàppee nga takk ay jaaroo wala ay ay ceinture rek ay ay portable pochette waaw kenn ki nag mhm. sac bi mu yore woon mhm. bañ koy fekk ca sànc ba di leen ramas mhm. yoroon na trois cent vingt quatre mille ak téléphone am ak euh, plan de maasam ak yeneen i bagages lu tax ñu ramas leen lu ñu def xëy na temps yi ñuy ramas gars yi gars yi doon dugg ci biir Auchan yeeg yooyu di dajji xam nga dañ doon dugg ci biir kër yi après di ramas gars yi waaw nee nañ bañ fa rommee ne dañ faa gis ay bagages Auchan par exemple tey nga romb fa ay pot yoo xam ne am na ay kii yu Auchan xam nga li ma la ñu daal leen jàpp dégg loolu mm-hmm. léegi nag moom li ñu leen di déglu ci ñetti fan yëpp mu ngi naan police bi sama saak bi joxal ma ko sama jabar saay bu ndaw si ñëwee indi añ mu ne joxal leen ma sama saag bi sama jabar ñu koy ñu koy ñu koy def noonu di ko tey bañ leen relaxé ñu delluwaat fa pour jëli seen i bagages waaw nee nañ policiers yi tëngéej ji xamal leen ne leen yéen ñi leen ramassoon indi leen fi am na ci ñenn ñoo xam ni présidence de la république la ñuy liggéeyee et commissariat boo jàppee nit ba yóbbu fa bagage yëpp dañ koy répéter yi nii ci kayit. dindi ko diw mii lii diw mii lii. waaw waaw dëgg loolu dëgg. waaw léegi nag ba biig ba démb d'ailleurs ba am na ci benn policier bu leen wax ne sax ci ñooñu ramasse leen am na ci ñoo xam ne sax nekkuñu ay policier hmm. mais ñeneen ñi moom waa palais lañu président de la république. ñooñu fan la ñuy ti ñooñu. waa ji taxawul sax non non wax wax waxu waxu tëngee tëngee ju police bi. moo ah. moo taxawul. Ah, ah, ah baax na wax moo solul tuba a leen yéen yéen wax jooju ci yéen la indi ay nit yu ñu ramasse. waaw kay wax joojoo taxawul. mais ñi leen ramasse nañ la ñuy jëlee seen i bagages di dem te yéen yéen a leen téye alaaji seen i loko. Hmm. joojoo taxawul. parce que ñoom comme xamoon na ñi leen jàpp am nañu ñu doonul ay policiers. Hmm. ñi si des pale la ñu nekk concerné wu leen. ne mission lañ nekkoon. waaw pale la ñu am mission. waaw nañoo remonté ba ñu leen téye. Ah. ba di leen jàllale mandat dépôt. <laughs> léegi dañuy dem kaso. ñu leen di àtte di leen relaxé. ñoom daal nee nañ daal dund na ñaari injustice seeni bagage ak seeni xaalis réer na. Ah. téye nañ leen ci ñetti semaine ak yu teg. Ah. génneewaat nañ leen. yow. Cap Manuel gii. fii lañ leen dugaloon ci kaso bi. Chimère jox ñu waa ji ñu déglu ko. police moo ñu jàppoon le 6 mars bi passé bi ñu jàppee ñu yóbbu ñu commissariat bi ñu yóbboo commissaria ñu defeere ñu mais bi ñu defeeree dem nañu taxaw tribunal 4 am 4 renvoi après ñu bàyyi ñu génn relax parce que toppewuñu dara mais bi ñuy ñuy jàpp police bon interpellation bi ay policiers ñoo ñëw fekk ñu ci chantier bi ñuy liggéeyee man sax dama amoon rendez-vous ouvrier lañ jàpp si biti bi ñu jàppee ouvrier si biti ma ñëw di def intervention en tant qu'ancien militaire pour xam lan lan moo xew bon ñu ñu jàppale ma ne ma nañ dem brigade dugg ci biir chantier bi fekk fa gardien bi jàpp ko ak beneen booy ba nga xam ne étudiant la bu fa nekkoon ñu jàpp ko moom ñu doon liggéey ci chantier bi yëpp ñu doon jàpp mi seen patron bi nga ñëwee dañ la ñuy defeere si nga bokk ci ñuy defeere ci laa bokk ñu fekk leen ci ngeen liggéey ñu jàppale bon ñoom nee nañu matériel Auchan lañ doon wër te côté boobu dafa am ay xottu butéel ak ay xottu kees yu nekk foofu ci benn mbalit genre dépôt mbalit la quoi dafa jege chantier bi waaw. loolu lañ leen wax comme motif. loolu lañ wax comme motif mais bi li gën a doy waar mooy ñun biñ ñuy jàpp ñaari policiers ñoo nekk en tenue ànd lu toll huit ya nga xam ne ay civil lañu huit ya nga xam ne ay civil lañu dañ civilu bon donc ñun jàpp nañ ñoon ñëpp ay policiers lañu. waaw biñ ñu jàppee yóbbu ñu brigade bi ñu ñëwee dañ ñoo yóbbu ba ci bureau enquêteur bi ñu ber ñu ñu toog biñ ñu beree ñu toog ñu ne tekki leen seen lam yi ak seen jaaro yi ñëpp tekki ñu yoroon jaaro lam tekki nafa yi ñu yoroon nafa ñëpp ñu jël ko man maa ngi yoroon sac ñu jël sac ak suñuy portable ak suñuy portable ak yëpp dajale ko biñ ko dajalee après ci lañ ñu dugal ci ci lañ ñu jëlee foofu yóbbu ñu poste police pour dugal ñu ci violon bi loolu fan la fii Dakar loolu mi ngi xewee police bu Tëngéej ñun sax mbaaw lañ jàppee. yóbbu ñu police bu tëngéej. même ñun liñ jàppee sax bi ñu yégee police bu tëngéej lañ bi ngeen demee ba police lañ leen ne euh, euh, pour matériel Auchan. matériel Auchan lañ leen jàppee nangam nangam ci biir chantier bi nag. fekk nañ fa benn 7 kilos ba nga xam ne ration gardien bi la 7 kilos ceeb. 7 kilos ceeb yoo xam ne Auchan la jógee. non non gardien bi moo ko jënd chaque fois day jënd ceebam parce que day togg foofu cin yeeg yëpp ngi fa. même man bi ñuy jël maa leen naan xool leen cin yeeg yooyu bu ngeen yóbboo ceeb bi yóbbaale leen cin yi. parce que mënu leen yóbbu ceeb rek parce que 7 kilos ceeb kii moo ko jënd pour ration am. ñu jël ko yóbbu. waaw bi chantier bi di liggéey mbala. ñun man man mosuma dugg Auchan ak sama bakkandi njaboot jabar laa yor ak ñeenti doom nii may wax ak yow sama tànk mosul dugg Auchan kon yàlla bu ma fekkee sama njariñu benn doom jabar laa yor ak ñeenti doom ñëw fii di fen xaw ma ko sax su ma sañoon sax su ko ma waxoon ni dinaa dem bay dem tës di wax du ma ko gëm waaw bon léegi bi ñu jàppee ba nangu suñuy bagage noonu dugal ñu ci violon bi trois jours def ci violon bi yëpp man maa ngi réclamé pour ñu jox sama sac sama jabar mu yóbbaalaal ma ko ndax dafa am këyit am xaalis mais saa yi ma ko waxee chef de poste bi ndaw si bu ñëwee di indi añ buy dellu noonu lay delluwee dañ may calmer noonu rek dóor ma calmant ba keroog bi ñuy déféré maa ngi réclamé sama sac il s'est trouvé que ni nag déféré nañ ñu ñu dem def trois semaines fële ak quelques jours. fan euh, Cap Manuel ñu jógee Cap Manuel ñu yóbbu ñu. Euh, Sébi xotaan une semaine nañ fa def ñu taxaw euh, juge bi mu bàyyi ñu. relax parce que dossier bi amul. sans motif sans motif. génnal sa kayit bi nga woon ko relaxé bi. relax amul sursis amul dara. amul sursis amul dara bon bi ñu génnee jeudi ci guddi vendredi matin ñu dem di jëli ji suñuy bagage police mooy bagage police su tëngeej bi ñu tëng téye woon mm. bi ñu ñëwee di laajte bagage yi bi ñuy wax ak euh, policiers yi fa nekk am kenn ci policiers yi nañu wax na xàmmee ngeen ko ñu ne waaw bi ñu expliqué décrire gars yi doon jël bagage yeeg yooyu ñu ne ñu waaw waa prés ñooñu waa présidence lañu am am ku ci ne ci policiers yi waa présidence yi la. waxul waxul woon ak ñun sax mais ci policiers yi la doon wax ndax bi ñu décrire ba pare. parce que yéen da ngeen a euh, ñoom dañ leen a laaj maanaam ñi leen jàppoon ñi ñëwoon di leen jàpp nan lañ mel. bi ngeen expliqué ni ñu mel kenn ci ñoom wax ak keneen ki ne waa. présidence yi la. li ma lay wax ni biir biir lépp mi ngi xewee ci biir police Tëngéej. ndax ñun kenn jëlewul suñu bagage ci biti. d'accord yow en personne sa lan moo ci nekkoon. sama saak amoon na benn plan de masse bu ay terrain la yow yaa ko moom. non ci laay liggéey ki ko moom laay liggéeyal. xaw ma ndax mun naa tudd turam ndax kilifa la mais mun naa la ko wax ci suuf. nga vérifié waat ko te boo ko laajee dina la ko wax. Mhm. kilifa la moom laay liggéeyal buy jaay man lay yónni ma dem won ko client bi won ko site bi plan de masse bi laa yore won ko li ma góor gi yónni. ok bu weesoo loolu damay liggéey ci batiment waaw léegi sama sac li ci nekkoon mooy plan de masse boobu samay pièces ak 324 000 ya nga xam ne sama xaalis la. moo nekk ci biir ci enveloppe la nekk. deux cent mille francs bi moo nekk ci benn deux cent mille francs bi moo nekk ci dafa am benn poche secrète bu nekk ci biir vingt quatre mille yi ci première poche bi rek laa ko dugaloon ndax cinq benn bi mu des benn bu téeméer bi ma def ko ci biir sac bi ak sama portable léegi bi ma ñëwee di laajte ci kenn ci policier yi di wax moromam bi ne ko ñooñu waa présidence yi la waaw gain bi mel na lu jëli quoi waaw ni ah d'accord d'accord d'accord ñëw ni ma waaw da di bàyyi comme réclamation bi xaw ngeen bari tuuti ndax mat ngeen six c'est très sérieux bàyyi ma touché ci un mois comme ça six personnes leen ci dara jotuñu ci dara dara dara dara kii rek ñoo ñoo mais des na geneen quatre personnes yi nga xam ne ñu ngi foofu xëy na mënuñu woon déplacé wu ñun ñëpp mhm. bon ñu topp ci depuis jeudi boobu ba nii may wax ak yow waaw ah, ndax jeudi bële la génn waaw ah, boo boo liiree di gis date bi ñu bi ñu nii carte grise la boo xam ne benn policier ko for jox ko suñu benn grand. Mhm. Euh, Ndiogu Diawara. Sam Notaire. ah yow lii koñ balati. Ndiogu Diawara sa carte grise mi ngi ci Pape Modou fële ca cité Jonkoom. Mhm. voilà boo ñëwee ba ci tali bi dox ci diggante cité rek ak notaire rek ci boulangerie bay baar waaw kay laajteel foofu Pape fi waa cité Jonkoom di toog waa mbaar Euh, association benn jabar yi laajte laajte lekk neel Ahmed Aidara yan grand lay wax ni fii na du yàgg bañ takk ñaareel. bañ takk ñaareel. waaw incha boo fa yo demee rek waaw kay. ñoom doon jaw. waaw waaw waaw. kenn voilà ñoom jaw la voilà. Euh, alaaj loolu loolu mooy indi géej yooyu nag toj bi. <laughs> alaaj ah en tout cas day. Ah, man day man day. Mm. man day tës bi daal. ah. man de lii jaaxal na ma wax dëgg yàlla jaaxal na ma. tey na waar. man souvent souvent da nga est-ce Sénégal. ah. sama yaay de maman Nda Guèye nee na xoolal xoolal. acharnement baaxul. nee na Sénégal comme film. acharnement mhm. baaxul. c'est baaxul des fois dina nettali yoo xam ne danga naan ci scénario la lañ bind rek teg. ñu koy joué. nit nit. nit du abusé wu ci tëni wala cër ba yàlla jox tooñ baaxul. ndax ma loolu. ah en tout baaxul. nit du abusé wu ci tëni en tout cas gàllaaj dañ koy wax yàlla jox. bu dee dañoo yor ay bagages am alaaji ko ko delloo. dañuy wax tooñ du gàllaaj xaw ma nag. dama ne man de xaw ma de. xeekew ma de waaye dama ne bu dee yor nañu. ay bagages am. Mhm. Mhm. nañ ko ko delloo. Mhm. bu dee yor nañu. ay bagages am. nañ ko ko delloo te nag alaaji. Hmm. lii nag mi ngi a bari. delloo gi du yomb. dégg nga hmm. ah. yor nañu ay bagages nañ ko ko delloo. delloo gi de du yomb ndax nag. ah baax na en li mën sóor di wax ci tooñ hmm. ah baax na ñoo mën a tooñ de ah. mën a tooñ de mani sànni traak tooñ la ah tooñ la hmm. baax daal yii yëpp day jeex de alaaji yii yëpp day jeex lii lépp day jeex. yaati. bisa ngee ñëw rajo bii ñu toog ñun dootuñu fi toog. wallaahi. bisa ngee ñëw sa ndomba tànk maire dootoo ko takk. Mm-hmm. bisa ñëw sa nekkub député dootoo ko doon. ko doon. bisa ngee ñëw sa nekk ministre dootoo ko doon. wallaahi. bisa ngee ñëw sa nekk président de la république dootoo ko doon. wallaahi. bisa ngee ñëw bisa ngee ñëw bisa ngee ñëw. wallaahi. Eh, alaaji. tax na. Eh, bi sa ngay ñëw sa hmm. tenue bii nga sol. dootoo ko sol ba tax nit ñi ragaluñu leen de. te dégg nga waa ji ancien militaire la nee na ragalu ragalu ma man tenue ndax ci laa jóge hmm. reste kay moo fi ne. Hmm. wala bañ ko la xeeb xoolal diw di xeex ak police bi bu dul dara du rus sax gaayen tenue bi police bi sol. wallaahi loolu ngay dégg de. ngay dégg de ngay dégg de. ah baax na dégg moo tax nag. nga suñu tësu keroog ba ca eh, eh, eh, saako. saako yambaa ba. ka doon xeex ak gendarme ba te gendarme ba daanu. waaw. te mu mujj daw te ñu jàll sëfër bi waaw xam nga lu kooku xoolul tëni bi. kooku xoolul tëni bi jëflante nañu waaye wan na ko ne maa la ëpp doole maa la man maa la dàq daw. maa la dàq daw maa la ëpp doole maa la. <laughs> waaw wallaay <laughs> ah, salañ salañ moo waaw salañ salañ bërti bërti caxa caxate yi takateer ba daw waaw waaw <laughs> yéen ah yéen ko ah, ah. yéen saa yi am ci doy waar. ah ah mbot léeg am ay mbot yu doy waar. doy waar <laughs> fekk naa ci benn bu kéemaan. dégg benn booy suñu ca kii nii. waa waa gaynde yi. boobu boobu itam waa jëkk a tooñ gendarme bee ko tooñ. yàlla. da koo kii muy avancé am fu mu droite avancé ba ca kanam droite mun ko lu tax ngay dem fa sori mun ko amoon fu ma jàdd mais jàdd naa waaj. waxante échange gendarme mbékk ko. comme eh, eh, eh, béjee bi mu ko mbootee. mbot day day day kaw tali bi la ko mbotti mbotti boo xam ne. eh da eh waay waay daa ñibbi. kan takk der ah non non su ma daa ñibbi. <laughs> jàppale ko. non parce que loolu boo demee ci commandant bu bu bu bu bu xam ne yàlla doo nga tax muy liggéey. waaw du la wax dara. da lay bàyyi nga dem. dëgg la lii de daa mel ni kon suñu. kenn du ko sonné tooñ. loolu de daa mel ni suñu waaja jabar ja mbotoon. maintien euh, yow bu ñu la dama dama def maintien de l'ordre doo doo indi doo indi désordre moo tax day mel na nit suñu waajee jabar jëm mbotoon. mbot lay lay mbot googu kay. jabar ji boobu de dem si yàlla gaa ngi fi ndeysaan ajaab yi nga ngi fi de. mbot. <laughs> ok. moo tax takk jabar yi nekk ci saali wóorul. daay daay daay. amoon naa ci ko. ak jërëjëf la ku doole. koo bëggoon a wétali ko waaye loolu tax ma génn bi ma xoolee bi ma xoolee dara ji yi ma am ci ci ci mpo <laughs> alaaji am na ku ma ci bëgg lool. waaye dara ba mu waxee dara ji yi dan yi dan yi kii de amul benn dan. <laughs> kii. Ah. doole doole. Eh. doon gone banlieue am doole ma pare kok mën a xeex. ah boo <laughs> saa ne am na. am na xale am na xale yoo xam ne doolee alaaj doolee raw dem jamono mbedd taa xale yaa. nga doon xam këll nit ñi buñ màggee ku sëy ak ñoom dinañ la dugg. <laughs> dañuy yenu paan ba pare di xeex. boo leen jege seen ñu yàq la seenu oom. te te te ndox mu di tuuru nga xam ne ñii ku leen dugal ci néegu sëy alaaj ñu tey la ci gàggu gi. <laughs> la ñun daal suñu waa ji fi ñu toog noonu groupe noonu di waxtaan alaaj wuy ma waaw mu doon wuy ma waaw mu doon tokkaas génn gone foofu am jabar ju mel noonu ba pare léegi jabar ji daan nekkoon ci biir ci biir kaaru law bay ñoom jaara gajagaa doon yóbbu seet moom tokkaas moo ko waral léegi ñëpp nekk ci biir bis bi waaw moom pour moom jabar ji dem na non booy bi gisu ko. jabar ji gisu ko. nekk booy baa nga ci bis ba di ko di ko ci tataaw Pape Fall bi di ko gis. kooku dafa doon doon ak ñaareel. wuy ma wuy ma xale bi wàcc. di ko lan wàccaat kaar bi. ñun traversé nañu ñii romb ñu. doo leen ko foog. taj waaye yow dañoo xam li nga giir daal jékki-jékki nañoo jékki-jékki rek tànk tànk gis sa waay xoolal fekk xam nga ñoom bii nga jël robinet bi ci buntu kër gi la nekk booy dugg ci booy dugg ci buntu kër gi rek ci robinet bi ngay yem ñu takk xar yi nii ci biir ci ci biir mbaar mi ñun daal dañoo jékki-jékki alaaji xam nga robinet yi gudd yooyu nga xam ne pression bi fort sa ndox mi du ñëw waaw robinet yooyu robinet yi sigg yooyu ñun daal tànk waa ji lañ gis ci kaw robinet <laughs> bërtët. xaaral bu noppi sax. baax na. <laughs> wuy ma. laaj mboot ko. jaay jaay daa waaru. xam moo ñu magal ñun suñu groupe bi ànd bu yàgg. Paate Diop a njëkk a waaru ñëpp. jaww ji mboot ko yëkkati. kooku xam daal ñun daal xam nga luñ seen ñun ay tànk lañ seen ak bi mu yeggee suuf. <laughs> waaye bi ko gone gi ñun ba léegi nii. ñun daal dañuy toog mu nettali. ñu ne xamoo leen nu mu ko daane non non non non moom moo ñu nettali après. ne ñu ndekete ndaw si te gëñoom gi la jàpp. <laughs> oo oh, ko nga nga ni deful saal bi lay def na. <laughs> deful benn saal oh, oh, <laughs> sa waay nu la diw mbote mu ne waay man daal gars yi xoolal gëño gi fii koo xam ne jural na ko ay doom. ah te ci gëñoom. waaw gëñ waaw ko ci gëño daa miin gëño gi. da ko miin yaakaar miin gëño gi xam ne si weer kaay kaay ñu dem fii te ñëw. loolu <laughs> wax ana gars yi ana ngeen. waaw El Hadj. billaahi boo moytuwul sab sax na baax na baax na. xale yi de léegi ci gañoo lañ naan la ci xëcc la ba nga ñëw. nañ lay peese. li Aline Diaw doon wax Balla Gaye xayma la waaw. jàppal ci digg dara. <laughs> bu loxo bi peesee kilo. wiccaxal xam nga daa diis. xam nga xale lay nat xam sa force ak sa faiblesse. waaw booy li ñuy nekk yow dañu lay nat. booy foo ne nii. la ay keroog. alaaji laa tiit beneen ban côté. côté Sacré-Cœur suuf pont bi. la ilaha illallah kooku muy takk ñaareel yëgal ma ko. ci àddina kooku du takk mukk ba. la ilaha illallah mani. yëgal ma ko rek. mbaa jigéen buy dóoree jegewu la foofu. <laughs> Ah? ah non non man kese man kese. bu la mooy moytul de te yow xam nga côté bi nga dëkkee Gunaas dafa am mbartal mbartalu lii sa limaamu laay bi dégg naa foofu nga dëkk. waaw foofu laa moo jëm kër Culowaat de booy xeex de bul féete bu eh booy xeex bul féete suuf de. Hmm? da lay tiim di dóor ñëwal fii ci kaw gi te boo deful attention mu mbot la xeex ci montagne gën a wóor di boo féetee kaw am na risque boo féetee si. am na risque waaw. barki Rasulullah. Euh, féete suuf sax moo gën a dal xel. non da lay dóor bu dee la la. non da lay tiim di la ko. non alaaj mais boo mënee fente. ah, ah ba jël ko non mën nga ko jëli jëli bu doy waar fan fente fan. xeexu montagne alaaj féete gën a. mais de fekk yoruñu ay siis. Ah, waaw waaw. <laughs> nga alaaj man damaa yàgg nekk stade ñuy xeex. <laughs> tribune bi bu yàlla dogalee ngeen féete ci marché yi ci suuf tey ngeen dee. siis yi ca kaw lay jóge <laughs> balaa ngaa rawale sa boo fekk génn nga àdduna. xanaa nga yor comme sama genre bopp yi ngan nga xam ne lu ci dal du tax mu toj. mani. waaw El Hadj. man ah xaaral ma arrêté tuuti ba kii bi paas ba koor gi. bu ngaa dee vitamine dara de lu dul bopp bi. laajal journaliste RTL ñu bokk jamono yi bokk bi mu nekkee wàll te moom mu nekk fii. te ñoom ñaar ñu doon ñu doon ñu doon ba daje. ay carottes laa gis mu gàddu ko dañ. waa ji dana ko <laughs> bugaat gee dani mat sa ba woon sa wàll fa ba ñoom diw. mbëkk mbaa tas mat sama <laughs> mbëkk rang waa naan ko bu doon góor nga doo yor mar nekk na ko mbëkk waaw góor ak góor ngay dem di ay ngànnaay <laughs> mosalan bu doon góor nga doo wut marto <laughs> daaru weñ la foogoon la ko dóor ni ko bopp ba la wàccee ca kaw day bu faloo ci réew mi ko bu doon góor nga bu góor nga doo wuti ngànnaay rang waa ji waa ji kilifa la léegi laa lay wax ni RTS. alaaji bëgguma tudd turam. bàyyi loolu mu seet parce que saa bu génnee rek seen xel day dem ci tës bi. alaaji baa ngi ci masu ba bàyyi la nga wax <laughs> waaye. gis nga rek muy gaaw mii dix dix mille problème. man kooku mooy sama xarit bugaana sama xarit de. bugaana ko génne kii moo génne bugaana ko génne. waaw ki nga tudd mooy sama xarit nag. ah da koo war a rang muy gaaw. rang muy mbëkk rang muy mbëkk. waa ji naan ko bu doon góor la. te boobu fekk na mu xam ba ximali ko une heure de temps après max a jeex. mu koy joor ay kaddu naan ko bu doon góor nga doo wuti ngànnaay. su <laughs> moromu góor a góor ngay wut weñ marto la xawma la ndeke bopp la. te waa ji ba léegi xoolal jëm bi dara nekku ci xanaa xamul loolu. yow miy mbëkke yaay ëpp sens doo neewee rek. bu ñu la mbëkkee da lay bett. waaw. <laughs> El Hadj Mbëkk maa yàgg xam nga mooy Mbëkk. comme Mbëkk CSA bi. <laughs> Cheikh dafa waa Thiès boobu. ma ne foo ne nii yow yow foo lañ war a mbot wax ma lu ma xew. <laughs> mais El Hadj yow rek. yo yóbbante jàmm. bu nekk central. lu mu nee na ma nee na ma naa leen ko nuyu quoi vraiment saa su nekk da leen di bàyyi xel. ah bëri na ci morom <laughs> Jiba Jiba bëri na ci morom kooku de moom day Fatou Ndiayem saay bu ma yeewoo. <laughs> Jiba ñu ngi lay nuyu central. central mhm. nga xam ne. dégg ñoo nekk xam nga yaa ngi dédicace xam <laughs> xam nga yaa ngi dédicace. Mhm. waaw waaw baax na allez-y waxal fi nga ne. Voilà, merci beaucoup. L'actualité du trafic du Wendy, donc sur la 89.7, sans que nous sommes passés au niveau peut-être que c'est passé par là-bas mun na nekk ndax tey jafe-jafe mun ngeen ko jaare sax daal di progresser directement les zones A et B jaare ko nag kër góor gi jàpp pour sacré kër foofu la amul jafe-jafe naam sax da ngeen si ak woto yi nga xam ne ñoo bay ko di côté liberté 5 wala sax ñu bay ko nga xam ne moo nekk cité kër góor mais teewul mën ngeen ko jaar bu dee sur les deux voies de sacré cœur mu leen yóbbu di côté pont sur l'ancienne piste pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem du côté de Wakam bu aussi da ngeen préféré progresser sur la VDN en provenance du côté cimetière Saint-Lazare destination nag Seydou Nourou daal foofu aussi amul benn complication pour le moment ça assure que tranquille El Hadj. ñu mbëkk la de aywa Simeer mbëkk ma ci machine <laughs> te dee leen naan eau casamançaise mu sell mi te wóor ngir seen wérgu yaram ak ndogu mu sell eau casamançaise moo leen di ñaanal kooru ñuy waxtaan ak xarañ bu jëm ci électroménager bee ko ko waral ak compartiment Everfresh Plus ak Neofrost Dual Cooling yu réfrigérateur Beko yi denc leen seen fruits légumes yàpp ak jën ci diir bu gën a yàgg ñetti fii ba le 15 mai 2021 profité leen ci super promo ramadan bi leen Electronic Corp indil ngir ngeen mën a jënd seen équipement Beko ci njëkk yu amul fenn rendez-vous dès maintenant. Dans un de nos showrooms, 61 avenue Georges Pompidou, 105 avenue du Président Lamine Gueye, téléphone 33 823 47 87, point E. En face SGBS, téléphone 33 867 67 60, deuxième rond-point Sacré-Cœur 3, téléphone 33 867 79 99, Carrefour Sali, entrée de la ville de téléphone 33 957 95 95, électronique corps. yónnee xaalis warul a jafe ñun waa Senwave neneen lañ koy defee bu gën mën nga nekk te doo fay dara waaw waaw dégg nga bu baax doo fay dara noonu la yombee mën nga doxi sa soxla si Tawfekh daan na lii gën a sa adina si lu amul benn sikki saka wala xel ñaar yónneel xaalis si lu gaaw wóor te doo si fay dara téléchargeel application Sunwave ngir yónnee xaalis bu jóge bitim réew di ñu la may juróomi euro si sa transfert bu njëkk ak code bi di diaspora ànd si ak suñu partenaire bi di UBA. yaay léebal ma amoon na fi benn infirmière bu jox si gën si wérgu yaramu nit yi ak bu njabootam meewu l'écran rek la woon meewu na piir bu am juróom-ñetti farñeent waay yaay kooku yow <laughs> waaw waaw sama doom te sax waxtu njogandal jot na xaaral ma defaral la kaasu l'écran bu mag <laughs> l'écran meewu nag piir bu am juróom-ñetti farñeent mooy li gën si suñu wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëg l'écran firndeel mbëggeel bi gën a wóor waa Grand Moulin de Dakar mooy gunge ak sant bépp yarkatu ganaar buy liggéey ak pas-pas ngir ñu am kooru jàmm Grand Moulin de Dakar mu ngi leen di ñaanal kooru jàmm voilà ah balaa ñoo ñëw ci deuxième partie bi daal alaaj ah en tout cas stade maître kër Seye bi ñu fi doon waxtaanee keroog. alaaj mbir mi nag ma ngay commencé di bëgg a sérieux. dégg nga Bougane Gueye Dany bi mu fa demee ci weekend bi. la collectif ba nañ taxawee ak lañ wax. Mm. waaw man nag man man stade yi man. ah man stade yi nag alaaji baax na stade yi ñuy soppi ay centres commerciaux di leen soppi ay je ne sais pas quoi xaw ma lan ak lan di toj jël suuf sa di jox ñeneen. ah <laughs> baax na. mais loolu dafa bokk ci mandargay ndar. <laughs> waaw waaw kay. loolu. nan si stade bi waaw waaw. Bougane il a de. stade bi dafa bokk ci mandargay ndar. dafa am te mooy stade bi toor. da ngay da ngay ah delloo buum da ngay delloo buum ca mboy. Maître kër Seye moo nekkoon vice président conseil constitutionnel. Hmm. servir réewam ci wàllu ñaq. mais servir réewam ci deret. ñu dem ci élection yi fi lëndam président conseil constitutionnel démissionné mu engagé wu ci responsabilité ci kilifteef ci détermination ba kanam rot ñu rey ko ba ci kundare kam loolu ñun dañu ko bëgg fàtte parce que honoré suñu réew liy honoré suñu réew mooy jël ci suñu ay symbole yu réew tuddee ko ko moom. tey ñu war a jël stade boobu di ko garder ba suñu ay stade fii ak junni at. fekkee ko ñu dugal ko ci suñu ay patrimoine dugal ko ci ay mise yi nga xam moom lañu am ndax au moins moo ñuy fàttali jàmbaar ji nga xam ni. bii yi fi ne këkk kenn mënta prononcer ay résultats wu élection présidentielle. mu taxaw jël lenge yi. ngir contrôler ko ba ci cëppaandoo ja ba ñu rey ko digg ba ci ku ne rek kam bu ñu daane stade bi nga xam mooy symbole bi ñu koy tuddee ñu koy fàttalikoo ci lu rafet lu ñuy bàyyi ak moom. daanaka moom ngay moom ngay daane laat. jàmbel jàmbaar jooju. non dama ne. da nga koy da nga nga koy waaw dëgg la. lu ñuy bàyyeel. vraiment dara wàcc na liggéey nga bëgg ko wàcc dañu bëgg a fàtte reyu maître Babacar Seye dañu bëgg di fàttali ko maître Babacar pour une deuxième fois nag. waaw dañu bëgg di fàttali ko maître Babacar Seye stade bi stade bi nekk symbole. mais au delà de maître Babacar Seye. ñaata nit ñoo fa nekk ñoo xam ne tey jii de suñu culture ñun dañ leen di sagoo. arrêté am réew. ndar au delà de stade maître Babacar Seye war nañu méritoo yeneen stade. ñu fay def. mais ndar comme Dakar comme Thiès comme yeneen dëkk. mais ndar alali. Uh-huh. ndar dafa bokk sax. ci suufu esport. rawatina ci Sénégal. ma wadd wadd. ah doyen Abdoulaye Diaw Abdoulaye Diaw. moo tax Alaaji Golbert Diagne. waaw billahi ma nga yëngu fu mu tëdd. wallaay. <gasps> ma nga yëngu fu fi fekkoon nii bu ko def nii barki démb alaaji. wallaay ah, day taxawee nu raw noonu. en tout cas kuy doomu ndar war nga caa taxaw. billahi taxaw comme ni waa Medina taxawee woon fii ci stade Assane Diouf. Mhm. nañu mhm. bàyyi suñu stade yi ñuy daaneel alaaji. ah baax na. di ko di ko di ko jox ay homme d'affaires rek di ko jox ay chinois ak di ko jox. ay business ak di ci business. waaye di. avec ça yow nga bëgg a gagner coupe d'Afrique. yow amoo stade yow Alaaji est-ce que xam nga ne yow fu ñu nekk nii nii nii nii nii. waaw yow sa équipe nationale bu ñëwee fii. laaj ma lan lay def. muy def moom amul fu mu entraîné. amu ko. <clears throat> day luy ci. xanaa xamul loolu. day ay sacré cœur rek. waaw ay ñoom Madi Touré yii. ñoo la ciy génnee de. dem ci académie yi wala ci centre yi. lu ko mooy Alaaji benn stade dong lañ ne moom la CAF ak FIFA homologué Sénégal ba mu nekk. non tam. Gabon gi nga xam ne defuñu deux millions wala ci lay yem population organiser nañ coupe d'Afrique ñaari yoon sa kaw xam nga yow kañ nga gëj 92 ba bis yoonu yàlla. loo xam ne ñun fàttalikoo ko. xoolal dama expliqué la te kat coow la la muy bëri yëpp ñaari stade doo nga amoon. ñaar Léopold Senghor ak Aline nga ne yow da ngay programme ay di daaneel ay stade. ñi ah, di bëgg am ay fàttaliku ñu fu Sénégal organisé coupe d'Afrique ñun ko suñu bët Sénégal loolu dafa ñaaw. Sénégal bu organisé coupe d'Afrique. Mhm. war na ci match de poule yi ñu footballé fa beneen match. comme ni France doon def football fii Saint-Denis. ok stade de France dégg nga loolu. ca euh, euh, Vélodrome footballee Lyon alaaji. waaw ñoom seen stade yi dëkk yi Sénégal ak Ghana suñu match amical bi ñu yóbbu woon Bombardier ak euh, Modou Lo ak ñoom Matar Diop suba teel. maa nga woon ca stade La Havre fa lañ footballee match international boobu. waaw mais xoolal alaaji. dëkk bu ci ne équipe nationale de France mën na faa recevoir yi. Hmm? dëkk bu nekk laa la bu nekk. ak lu mu ndaw ndaw. yow sa capital amul estade. sa sa première capital stade ba mu yoroon nga xam ni moom mooy patrimoine la nga ne da koy daaneel. France France dëkk bu amul sax stade ndax dëkk bu ndaw am na terrain football bu gazonné bu mag boo xam lu ne mën nga fay tàggatu. yow ma ni ñaari problème a ngi nii boo ko réglé nañu nekk fii di rêver rek naan coupe d'Afrique bii di ñëw mën naa baax waa wala di. baax fu mu baaxee alaaji petite benn ñaar infrastructure sportive alaaji gis nga boo ko réglé wul <coughs> bu yeboo nga dem jëli Arsène Wenger billahi wala nga dem jëli euh, euh, euh, Didier Deschamps mi yor France. wallaay doo dem fenn ñu indi jouru France yi fii ci Sénégal. jël suñu bos yóbbul France doo gagné. billahi doo dem fenn. doo gagné. doo gagné doo gagné doo gagné mais yow amoo foo entraîné ba pare nga bëgg taxaw nga bëgg a jàpp. ah vraiment. xam nga lan la lay dural xam nga looy hmm? doo am équipe xam nga lan ngay am. Hmm. sélection. kese à une semaine d'une rencontre alaaji. woo hmm. ko tax nga téléphoné gars yi. ñëw gars yi laal bii ñëw taxaw. nga seppi cof bi cof a ca des yow amoo équipe nationale sax yow booy entraîné. amu amoo amoo Aliou Cissé mi du entraîné kenn di moom day toog këram rek ba FIFA programmé ay match amicaux wala rencontre internationale. mu toog ci téléphone nga jël sa téléphone booy xool sa booy. après xoolal toog convoqué liste woo leen ñu ne fi cëpp. yow imaginer yow alaaj ñu ne match samedi bii di ñëw la. Hmm. di la xale yi di commencé di wàcc fii. Hmm. parce que ñoom samedi bii ak dimanche dañuy football. lundi ñu wàcc dernier groupe bi ñëw mardi. mercredi jeudi vendredi trois jours nga am dajale génnee say onze. Oh ñu ñëwati fii duñu amati fi ñu entraîné nga jël stade di ko toj. ñu ne maître Babacar Seye stade Euh, deuxième euh, euh, test bi. c'est gis nga test bi sax. non dafa non léegi. Soumer. jox ñu waa ji deuxième partie ñu xool fu mu jóg police yi. Ah. ci la ñu topp jékki-jékki ñu rek ñëw test boo gisee ñu ñëw test mooy bi waa ji touché commissaire bi commissaire bi dafa génn ni carrément bagages yi ñu ko jël jëlee wuñ ko ci post police bi dëgg la ci biir commissariat bi lañ ko jëlee mais ñooñu dañ fi ñëwoon rek mission dañ leen détaché woon ñu ñëw fi. te loolu du ci ay prérogative am mais interpellé ko carrément ne ko mais ñun biir police suñu bagage bu ñu fi ñëwee ak ku ko mënta jël te nekk police ñun war nañ cee mën a jota moo waral suñuy moo waral suñuy tànk ñu ñëwaat pour jël ko léegi ñun conduite à tenir mooy la mun nañu en tout cas moom lu ñu enregistré wul mënu koo fay du ci engagé wu ci dara commissaire bi ci boppam commissaire bi en personne en personne ba pare catégorique nag loolu mooy génne leen quoi ci jaaxleem bi ma génnee ma woo benn grand expliqué ko mu ne ma xaar ma jox la numéro benn avocat ma expliqué avocat bi doon plainte carrément mais genre plainte réquisition am na nu daal techniquement ay seen kii juridique yooyu ne ma a jot suñu bagage ma lan moo may waraloog yow mu ne ma cent mille francs ma bind plainte bi dugal ko bu ko defee ñu topp ko seen bagage ngeen mën koo jot mais man li ma gën a jaaxal du dara du dara man ancien militaire la xam naa lan mooy post de police xam naa lan mooy consigne du ma ngaaka bi xëy na ñeneen ñi xamuñu mais poste police boo fa duggee loo fa wàcc même bu dee jaaroo dañ koy consigné bind ko sa tur bàyyi ko man su ma xamoon ne ñooñu doon jël samay bagage du ñu ay policier sama bagage du dem ndax mënu maa ragal homme de tenue dama koy respecté ñu ay mais ñoom ñooñu ne carrément man bokk te ñi bi ñuy taxaw ñii ñu ngi koy dégg ñu ne ma carrément xam ngeen ne ñi leen jàpp ñëpp ñëwoon foofu du ñu woon ñëpp du ñu ay policier billaahi wallaahi mais ñëpp mais am na am na policier ñaari policier ñoo ci soltani ak ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy seen chef bi leen jiite woon kooku jàpp naa sax trop mais ñeneen ñi ñëpp du ñu ay policier du ma leen jéem a wutal nag wala mooy jéem naan ay lan ay lan ay lii la ñu mais ñoom policiers yi ñoo ma ne carrément kenn ci policiers yi moo ne carrément xam ngeen ne bi ñu leen doon jàpp ñi ñëwoon ñëpp du ñu ay policier man nag du ma ngaaka ci dëkk bi laa dëkk man su ma xamoon ne ñun duñu ay policier sama bagage du dem sama bagage du dem léegi nag nar naa ñàkk sama xaalis ñàkk samay bagage samay pièces samay pièces bu dee ñu ko jël duñu ay policier suba mun nañ cee def lu nekk mën nañ cee def lu nekk waaw ñun jàppin bi ñu njëkk jàpp moo njëkk a doy waar njëkk a suspect ñëw fekk ay nit ñi kese ay citoyen yuy liggéey nekk en tenue takk ciment nga xam ne ni ñii lii lañuy liggéey nga ñëw di leen jàpp ñoo ne la birig la ñuy déplacé di ko yóbbu fële nga boobu leen yóbbu ñu ñëw di def intervention nga jàpp ñu yóbbu ba pare doog a dugg ci bâtiment bi fekk ñu fa tëddoon di nelaw nga yee leen jàpp leen ñun nii la ñu jàppee du benn bagage Auchan bu ñu yoroon benn bagage Auchan dañ koy yóbbu ci juge te juge duñu bàyyi ñoom policiers yi dinañu bind lu leer la nga xam ne kenn duñu bàyyi ndax koo jiñ association de malfaiteurs ba pare ni ñun ñoo toj Auchan bi ñun loolu la ñu jiñ man nag benn fan bu ma def ci kaso baalu ma leen ko waaw mu commencé ci police ba ñu ma jàpp ba ñu ma atte benn fan bu ma fanaan kaso baalu ma ko baalu ma leen ko billaahi wallaahi wa taala mais lenn rek laay ñaan mooy sama bagage nu ma mën a fexe ba jot ci moo xam ci contentieux lay doon dama leen di topp ci yoon moo xam lu mu mën a doon waaw mais bëgg naa jot samay bagage ndax yaakaar naa ni police kenn du réer le biir police bëgguma utiliser de gros mots naan dañu sàccaw ko wala dañu def nangam wala dañu def nangam mais nii la cas bi demee d' léegi da ngeen a bëgg daal koo xamante ne mi ngi leen di dégg euh, bu leen mënee jàppale ngeen jot seen bagage yi. ñu jot suñuy bagage bi ci boppam bu fekkee mën nañoo dimbali moom mu xoolaat revue effectif am le boobu ñi fa ñëwoon moo xam xaw ma fu ñu jógee xaw ma présidence xaw ma feneen ndax loolu laa dégg ñu ko fa. le 6 mars. le la ñu jàpp ci 11h ñi àndoon ak ñoom ñëw jàpp ñu ñoom mun nañ leen dajalewaat. man bu ñu ma woowee man leen kii ak kii ñoo jël suma saak ak kii. d'accord man loolu rek laa koy ñaan. d'accord waaw d'accord sëñ bi yow tamit si nga bokk lan nga ci mën a doole. li ma ci mën a doole mooy que ni Auchan Zac Mbao ñu ngi koy saccagé le 4 le cinq le 4 le 5 nekkuma fi woon j'étais parti à Tivaouane le laa fa ñëw le samedi Baye Fall benn benn moom mooy vigile bi moom moo nekk si kër gi daanaka ñu ñuy dëpp ñu ñëpp ñu dëkk si koñ boobu coopérative d'Arabie Saoudite ñun xale yëpp daanaka suñu grand la dañ fay jaar di ko seet yi des fois bu ñu amee passant dem seetu ko ndax moom tamit conditions yi damay wul woon noonu mais li mu bëgg xam le mooy que ni dal ñun on les a utilisé comme des boucs émissaires bu ñu utilisé comme bouc émissaire nangu neen nangu neen nattu bi ñëw mais bi nattu bi ñëwee pare maam policiers yi nga xam ni seen rôle mooy d' assurer la euh, la sécurité des personnes et des biens bi ñu génnee foogoo ni jot fa suñuy matériel du dara surtout bi ma déposé plainte ñu boole maa kii nekk si brigade recherche bi ma dem bi ma ko expliqué ba tudd ba tuddal ko turu waa présidence ay affaire u nerf bi dama gis ni sawatul si enquête bi li mu tontu mooy que ni man su ma xamee kooku ma gis ko naa ko ñëw wax ndax man dama ko wax ni kooku moom su ma gisee xam naa kan la loolu la ma wax quoi bokkule affaire bi sama permis euh, sama kayit bi ma binoon plainte bi enveloppe bi ñu ma joxoon mi ngi man ba léegi. léegi man li ma naqari mooy que ni naka laay génnee en tant que étudiant sama portable bi xam ne samay support samay dossier si lépp la nekk ma génn bëgg ko jël te léegi ku perte sa portable am na nu ñu lay joxe réquisition nga dem ñu localiser ko jàpp ko kon loolu travail bu yomb la. yow étudiant nga woon euh, di liggéey maçon pour am loo loo suturloo. non non non non man jour boobu ñëwuma pour liggéey maçon dama ñëw rek pour seet si Baye Fall. voilà ah, da nga ñëwoon ci chantier bi yow. waaw waaw dama ñëwoon chantier bi rek pour seet si Baye Fall man sax pour man la ni jour boobu dama ñëwoon jugee voyage dama ñëw tëdd di nelaw man bi ñu ma yeewee laa gis ay tenue policier je ne comprenais même pas xew mais bu ñu demee police ba laa gis ñu indi benn benn ceeb lu mat ay 7 kilos ñu ne. ak ñaari ventilo hivernal. ay ventes hivernales yoo xam ne amul Auchan maanaam ñi fa nekkoon ñoom ñoo ko moom ceeb bi gardien buy fayeeku chaque mois xanaa booy togg chaque jour ñëpp ñu ko gisee ay cin ñu gis ko lépp dinañ xam ni kii dafay togg mais ni ñu utilisé noonu yëpp loolu yëpp amaana su ma koy wax nii mën ne ne damay tegg tuuma mais loolu indi ma fi dëggantaan li ma fi indi mooy sama matériel naka laa war a mën def pour jël ko surtout mu nekk si ñi nga xam te ne ñoom ñoo ñoom ñoo war a protéger suñuy bien man loolu mooy mooy mooy sama ñaxtu loolooy sama ñaxtu. ñu jot seen bagage waaw. mais surtout commissaire bi ci boppam bu dee moom mooy commissaire bu Tëngéej moom war na mën a fexe ñu jotaat suñuy bagage quoi man man man en tant que nit ku jaar ci métier bi man jàpp naa ni police wu nit waru fa dugg citoyen waru fa dugg ñu koy ñu koy ñu koy jëlal foofu dara ko surtout ak jàppin bi ni mu mel ak ni mu naqaree ci xol ñu fekk la jàpp la defaloo dara ngay borom njaboot. ñu jël la tëj la trois semaines. nga dellu si a di la six personnes yéen six personnes yëpp kenn ku ci nekk lu mu néew néew portable la ngi foofu noonu. liste bi dama ko indaalewul mais avocat bi daf ma noonu naa ko defaral liste lu ñu lu ñu réerlee yëpp. ñu def liste bi yëpp. bëri na waaw bëri na. ñëpp ñëpp ñàkk nañu portable ñi ay lamu xaalis ñi jaaro lu nekk portable sacoche bi na ñii seen sacoche amoon na weccit ñii amoon na xaalis bàyyiwuñ fa dara ah bàyyiwuñ fa dara ah ba pare police bi ñu jël benn engagement surtout commissaire bi moo njëkk a ah, ni moom du lu ñu consigné wul lu ñu consigné wul mais même bu ñu ko consigné wul man jàpp naa ni ki may laaj samay bagage ànd ak policier yi policier yi taxaw moo ma koy laaj ñoom ñu ngi taxaw kon am na complicité bu am ci biir commissaire yàgg mii am na ku ma yónnee message ne ma ku bañ ay affaire u injustice ku bañ injustice la nee na na ko bind leetar ku jub waaw ku baax ku bëgg dëgg nag ah, tout cas daal alaaji waaw foo ñu ñu kalaam dafay bëgg bari nag ay biñ ma ramassé joxaatuñ ma sama montre sama portable joxaatuñ ma ko sama pochette joxaatuñ ma ko dugg na fi génn fi ñu ah. leen waxante dëgg ah. la police moom alaaji c'est du sérieux bu ca nit nekkee nag te bokku ca tamit. Ah. comme comme ni ñu wax nii ne ñooñu bokkuñ ca. wax dëgg yàlla ah. ñoom xam nañ ñooñu. Ah, ok parce que ñooñu mënuñoo ñëw dugg foofu noonu indi fa ramasse ay nit indi leen fa ba pare bëgg a demee noonu. non mënta nekk. Mm, mm, mm. mënta nekk. mënta nekk. mënta nekk dañu waxante dëgg. heure dëgg moom bu jotee alaaji. mënta nekk dañ ko te dee. te da nga koy wax sax te doo dee nag boo bëggee dégg rek. doo dee nag te da koy wax te dund. voilà waaw doo dee nag xale naan wax ko te lii daal mënuñu ko bàyyi nii mu sedd. dëgg day ab dëkk day am yoon. Ah. ab dëkk day am yoon. nit ki boo ko gënul gënoo ko lenn li bokk senegal nga am benn métier boo boo boo jublu métier ah. moomu. ñu délégué suñu ay pouvoir nga téye ko. métier bi protéger la yow nit ki. Hmm. doo doo def lu jaaduwul. Hmm. Hmm. fii mënoo jàpp nit fekk ko fa mu nekk jàpp ko. te la tax ñu relaxé leen day jox ñu raison juste. waaw fa ab gardien nekk. ñu fekk fa ay ceeb ak yooyu. Euh, am marque Auchan rek nga jàpp leen loolu yomb na moo tax bi ñu demee tribunal ñu bàyyi leen parce du jàpp gu dëgër moo tax ñetti semaine lañ fa def mais bu ñu ñëwee itam ñoom ñi leen jàppi woon nag ay police bi palais la jógee ban police moo jógee palais di jàpp si ku dëkk ku dëkk fële. xoolal étudiant bi jógee bi ah, ñëw di noppalu su jógee voyage ñëw tëdd di nelaw di ñu yee foofu yóbbu. Ah, ñu ngi interpellé commissaire bu Tëngéej moom comme moom lañ ci tudd. Mhm. tant que responsable. Mhm. dina trouver solution. Ah, a solution. ah lañ ci tudd. trouver solution kay. moom ah, kilifa la. xanaa du nangu du ay nit joxoñ ko noonu ci lu lu lu ñàkk fayda muy pour mu gàkkal deram il va prendre toutes ses responsabilités parce que kilifa la. non. kilifa la waaw waaru ci yàlla sax. lu muy nii ah. Hmm? ñooñu aussi sa waay. ñu réew a tas na. kenn kenn kenn xamul la kenn non grand fédération bi moom waxaale wuñu ay mbiram moom fédération bi moom bo moom moom jarul sax moom yónnee message. fédération bi. fédération sénégalaise bu football bi moom ñu def dara lu dañ leen a war a football. jëlee leen fii point defoo leen résultat dañu leen fee war a jëlee. mais ay affaire u manda yooyu moom man yaakaaruma ni non man loolu. yaakaaruma ko sax. alaaji même buñ defoon résultat sax nag. dañoo war a dem te laaj ni quatrième mandat. waa mais ah. euh, waa waa nasaraan yi seen président yi alaaji defuñu ay résultat. bàyyi la ñuy def. voilà ah, dafa tax boo defee Barack Obama bu bu bu doon trois mandats dafa dafa am. mais am na nu muy demee day gañ a waaj. bu daganoon waaw waaw bu daganoon waaw. bu daganoon foofu. mais xam na xel ne deux jeex na point. jeex na jeex na doo dem. te ba tey dañ koy laaj. déggoo ma de gis nga li Trump doon def noonu ñu naan ay dina dem ak du dem waxtu wa moo dul jot li Afrique ngay def yooyu mu jigle de. ñuy jël ay CEDEAO ñuy ñëw naan dañ lay jéem a déjjati foofu nga toog sa bi comme li jàmme doon def. ak di la xuuxal ak di la xuuxal ak yooyu jox ay ultimatum fee amul ultimatum alaaji 20 janvier. ak gañe nga gañewul gars yi laam naa nga toog. non non non dañuy jóg dem sa yoon. la am ci sunu voisin yi. non non non alaaji. gars yi naan gañewul dafa am élection yi. alaaji di rayante ay nit. da ngay jóg dem tey jii yaa ngi nekk président. xoolal xoolal mm-hmm. gouverneur yi toog nekkoon yow si sa nguur. Mm-hmm. ñooñu ñoo lay njëkk wax ne la mbër résultat yi ñu fi compté nii lay demee nga leen di woo nan leen noo sàccal résultat yi ñu ne leen. woo ñu ko waxatee xam. demal gañe nañ la. waaw ngay dem dëkk bi dëkk moom moo ko. saatambu di compété oui. génn ndànk. dëkk bi dafa am ñu ko mais administration africaine yi nga xamante ni ci commencement ci suuf ba ca kaw ñëpp complice wu waa ji ci kaw la ñuy nekk. ñëpp ah, di tuumaal ku ne. tuumay fu ne lay jógee. gouverneur lii la ñu def préfet lii la li lii journée internationale de la presse bi li gars yi bind tey seen communiqué bi mhm. ab préfet buy taxaw naan gazé la presse ab préfet de Dakar taxaw wax takk der yi gendarme ne xoolal ubbi leen sox ci kaw tas ko xabaar yi pour ñu tasaaroo ça c'est quoi ça na pour faire plaisir rek au prince wala au roi rek pour ñu ne waaye yow sa waay xoolal gouverneur bee tas mbooloo mi journaliste yooyu Sonko da leen intéressé lu dul ñëw di couvrir nga naan ay ubbil sox seen kaw ñu dóor leen ay grenade ay grenade ah ñii tasaaroo def def ndax daara waralu ko lu dul xoolal bëgg lu neex buur dong dong dong dong dong te yow li la fa indi indi leen fa ñu ñëw def def seen liggéey nañu dem fédération bi même boo leen jëloon ñeenti coupe d'Afrique tamit dem leen ñoom Augustin Senghor alaaji dañoo war a dem lan laa bëgg a dégg man nag ña nekk foofu ba pare nekk ay complice man ñooñu ñoo ma njëkk a jaax loolu laa bëgg a dégg du ma fi nag tudd tur yow jiite mbir mi yow moom dañuy tudd sa tur yow ko gis tay jël coupe ak ñàkk jël coupe ñoo da ngeen gis nga gis nga alaaji mbirum privé africain xamul mbirum mbirum privé mhm. boo yoree sa société privée wu bopp mhm. sax nit ñi na nañu wax ak yow ci condition de travail say élément mhm. rawatina nag loo xam ne yow askan wi yëpp ñoom ñoo ko bokk wax dëgg yàlla fédération sénégalaise bu football ministre des sports Matar Ba moomu ko président de la république moomu ko. yow Augustin yow moomu noonu euh, euh, euh, équipe yi teg fa. moomoo ko. gis nga équipe yi alaaj équipe yi nga gis nii. Hmm. équipe Ligue 1 yi. waaw ASC yi ñoo leen moom. ñoo leen moom. ASC yi ñan la ñuy représenté askan wa ca gox ya ñu def amateur ak professionnel. Hmm. ñu créer benn entreprise. mu am foot amateur bi kooku moo moom professionnel hmm. bi. laa lay wax nii de. gars yi dem AG fal leen ñooñu itam ñoom ñooy génnaat après ak seeni délégué di fali les membres de la fédé gars yi itam créé encore patron wu football professionnel mooy Sayer Seck mi itam moom it naan day laaj dem leen ngeen toog wane ngeen li ngeen mën. dëgg yàlla gañewul leen gañewaale leen boo leen gañewoon sax. waaye yow ñun ñu ngi wax suñ troisième mandat bi du yoon ak du yoon. c'est que Sénégal sànjiri mii leeralul dara. yéen ngeen bëgg a ñëw naan ay ay trois quatrième mandat mën na am waa wala déet. ñoom maa di turé xamal la laaj ah? xamal a laaj. dañu ah. góorgóorlu. te loolu nag attention am na de maa la jox exclusivité bi. waaw actuellement li ñuy préparé mooy deal. waaw deal. deal bi xewoon keer. non bi xewoon keer. waaw am na ñoo xam ne ñu ngi commencé dox nee na yaay booyoo ay médiation non nañ toog waxtaan football bi benn la bañal. yow maa di turé yow laay wax ñooñu di la dugal ci loolu lankal bañal ba Augustin fii la ñëw. ñoom Malick Gakou ñëpp naan dañuy organiser wu yóbbu ko pale ñu def ñu ne suñ mbër maa ngi nii dem ak moom Mauritanie fu ne. ñëpp ne nañ leen ci jàpp pour mu nekk président CAF. fan la ñu mujjee dem ba o finish ñu lal seen deal. seen deal protocole. dara door seen protocole dara ba. def ay loo xam ne amul élection dil la dil. nga xam ne ñu dañoo campagne ba bëgg a. merci beaucoup léegi nag loolu aussi lañ bëgg indiwaat ci kaw fédération bi. yéen ñii defe ne nit ñi di leen kaasal ak di wax ne lii mooy yoon Augustin a dem na ngeen dem ba dernière minute ñu woo leen ca palais ba. wala woo leen ministère. naan leen noonu nañ leen def àllam yaabul Samba Kori Ndiaye ginaar ak ki nenam dem leen élection. comme moom ni mu ko defee woon. maa di xiifuñu. ah non mais yow du question xiif mais alaaji réew mi tàmm loolu. Mm-hmm. Ah. médiation dëgg la. mais am na foo xam ne médiation waru fa am. gis nga la pouvoir ne se négocie pas. Mm, mm, mm. xam nga li ma la. gars yi dañoo war di préférer perdre. dans la dignité que d'être euh, euh, ay ay ay président fédération wala président de la république wala ministre wala maire ci ay dil foo jaar nit ñi xoolal ci war dee la amee ndooma tànk bi ci dil la ko amee de mburoog soow ah, lu ko fi jar ndooma tànk yoo xam ne yow foo romb nit ñi ciipatul ah ay kooku ya kooku kooku kooku kooku te li ma gën a bañ ci mooy yàlla doon li jàmm ci réew ku fay nekk waaye fi nekk nii bu ñàkkee Ablaye Wade ku <laughs> kon ci xarala gi Mantulaay Cubu Ndoy laay Maxtaar ngi ni le ak sama euh, euh, gan gu rëy gi samedi alaaji Mansour Diop ana kan la dendal sëtu ko teg de kii borom maamu barrière or ba ca Médine bandi Hachim bandi Xore Sëriñ Ahmed Aïdara Karara monsieur le de la ville de Guédiawaye par force le procureur du peuple di leen jox ko dig daje suba inshallah seen émission tës ngeen ci ànd ak gamme le gourmet ak Uniparco alimentaire Ramadan Moubarak. Je vais vous faire la lecture du communiqué numéro 428 du ministère de la Santé et de sociale de ce lundi 3 mai 2021. Le ministère de la Santé de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 968 tests réalisés, 31 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,20 Les cas positifs sont répartis comme suit.